ak góor ak góor Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir ñëw fii fi Sam Fall di siyaare Serigne Cheikh Fall borom ndigal rakkam yi nga xam ne moo wàccub liggéey muy Serigne Aline Fall ibnu Serigne Cheikh Fall Baye Góor tey nag di bis bu tiis bés bu daw yaram fi ci Sam Fall ay ñu ngi ñaanal Serigne Massamba Fall ibnu Serigne Mouhamadou musa Fall suñu borom yokk ay leeram te sax ñu barké barké mam Cheikh Ibra Mbacké sak Mbacké Mbacké Mbacké Mbacké Mbacké noche. sincero. Thank you. Bismillah. Nah. Sing. Fal, fal, fal, fal. Sing. Sing sarba. Alhamdulillah. Tá. jërëjëf suma xool seet na bu baax waaw góor Fall suma xool seet loo loo sëñ Seex <laughs> loo maa ngi jégalu loo sëñ bi sëñ Alioune waaw góor jërëjëf tarkal waaw góor alhamdulilah xawoon na ko de waaw ma xool na lool jàll jërëjëf si am bas daam kóllëre waaw Okay. Agal na lol. Alam ko. Ban. Bismillah. Am nga. Bal ma càmmoñ. Bal ma càmmoñ.